benn bi sax ginnaaw bi benn waxtaan amee fële ca euh, TFM wala boog ci wàll euh, RFM te Babacar Fall doon ko amal dalaloon ci benn sëriñu daara comme ni mu koy amalee ci fajar gu nekk euh, di ci dalal lenn ci ay mbokk jàpp ni war nañu am ay xalaat ci question yi mu leen di laaj ñu di ko tontu loolu daan ci ñëw beneen bi tamit daañu ñëw ci. loo xam ne moom it depuis démb ba léegi ñi maa ngi gis ñu euh, partagé ñaar ñu baax ñaar ñu yiw ñaar ñu ma xam ci wàllum euh, li nga xam ne moom mooy géewu lislaam bi te ñu jàmbaare ci lool muy Oustaz Mbacke Sylla Mouhamed Lamine Dramé muy ñaar ñoo xam ne kenn ku ci nekk tey jile benn bànqaas nga bu jàpp ci diine lislaam loolu daan ci ñëw ci kanam tuuti ginnaaw bi ñu dalalee doctor Ahmad Lo biñ leen dalalee foofu la ci 2STV yi waxtaan wa gannaaw ba ba mu jeexee bari na ay kàddu yu ci tukkee loolu daan ci ñëw ci kanam tuuti incha allah waaye ñu fàttali leen ni leen waxtaan wi leen ngeen di déglu sëriñ Abdoul Aziz jaw moo ko maye Serigne Abdoul Aziz jaw nag defe naa ni kenn dootu ko présenté Sénégalais yi ci xam-xamam bu rafet. ci sellalam ci bàyyi xel yàlla ci liggéeyam waaye ci sellal bu am solo bi muy sellal liggéey bi ndax dafa bàyyi xel ni GCB dañuy sellal dafa am fu ñu jëm loolu moo waral ñu ngi koy gërëm bu baax ginnaaw bi ñu liggéey atu yàgg lool te kenn mësuma boole ak moom ci wàllu liggéey ñu ngi koy gërëm bu baax a baax sëriñ Abdou Aziz ay numéro mi ngi doon di affiché ci baaru écran bi lépp luy fajum plante lépp luy jafe-jafe sëy ci biir néegu sëy demal nga waxtaan ci ak moom lépp luy jafe-jafe tawatu yaram rek demal nga waxtaan ak sëriñ Abdoul Aziz jaw muy sëriñ boo xam ne sëriñ bu am sutura la wax dëgg yàlla sëriñ bu am sutura lool bari na sëriñ yoo xam ne nag audio yoo leen envoyé ñu envoyé waat ko gars te du ñu envoyé nag du ñu envoyé mukk ojo soo waxee rek dañ naa la wooteel waaye audio boo leen yónnee ñu yónnee waat ko nit ñi naan gis nga kii de ba ngóoram ba ba ngóor a euh, kii maa ko faj. lii de ba mu nekk ci ay jafe-jafe maa ko faj dégg nga ni may sante gërëm te yàlla xam na ne sant gërëm yi mu koy sant ca beneen débat la waaw loolu ñu bàyyi ci ba xel baax sëriñ ak euh, médecin ak policier ñoo yam dañoo war a am sutura voilà am na solo am na ku ma dégg muy ree sama wet waaye sama yoon newu ci <laughs> mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan wi nañu ñam tuuti ci waxtaanu Babacar Babacar Fall nañ ci ñam tuuti. après ñu daal di ñëw. tamit ñoo xam ne ñi xam nañ li xew ba tax na kenn du ci yedd sëriñ daar yi nga xam am na lan moo waral population bi am ci ñoo xam ne ñoom dañoo gàddu lu mel ne ndeyu daar yi lu mel ne yenn baayu daar yi nekk ci quartier yi weeru maanaam du du weeru am na ci ñoo xam ne sax ay bool lañ gàddul far xale yi boolu añ di leen ko di leen ko di leen ko indil ci daar yi naan leen waxtu jotee na ko ñëw jël si seen bopp ñaata ñaata ñaata sénégalais ñoo koy def léegi nag loolu bu ñu ko bëggee dendaleeg ñi nga xam ne dañuy exploiter xale yi ba noppi jàpp ñoom ñëpp nag yabandoo leen ci benn saak jàpp ne sëriñ daara yi non non loolu il faut lu mat lu ma bàyyi leen xel yéen ci seen biir lu tax mënu leen segg ñiy doxal ak ñu dul doxal ñii ñiy yelwaanloo xale yi ñu teg leen fële tas daara yooyu jël daara yi nga xam ne ay daara yu méngoog jamono la am internat lépp lu ci war ñu koy def xale yi seeni waajur di fay état bi di def subvention jàmm na ñooy. waaw lan lan kan moo war a segg ñun ñoo war a segg wala état moo war a segg mais mën seen seen biir association bi am na ci ñoo xam ni dañoo dem ci bopp koñ baa fekk tabax bu yeggul ñu samp fa daara te ñu ngi seen biir association yi duma leen di déet ba tey duma leen di déet ba tey yaa ngi may yaa ngi delluwaat nag ci waru waru garu état ci taxawaayam bi mu war a am ci ci ci njaboot gi nga xam ne gii moo leen bokk jaboote wax naa leen ne ñooñu ay sénégalais lañu sénégal population la euh, sénégalaise population la boo xam ne bi ay jullit ñoo fi ëpp jullit yooyu tamit seen njaboot dañoo fas yéene balaa cee kenn gimmi bay màgg bay tali def leneen na jàng alquran te loolu foo dem ci goxi Sénégal yi da ko fa fekk loolu. mi ngi noonu foo dem ci Sénégal di nga ko fa fekk muy waxtaan wu euh, tukkee ci diggante euh, ki nga xam ni moom mooy Babacar Fall bu RFM ak imam bi nga xam ni dalaloon na ko muy imam Adama Seck imam Adama sekk moomule ginnaaw bi waxtaan wi jógee si digganteem ak Babacar Fall dafa am ay nit yu baree bari yoo xam ni dafa am lu ñu bind ci seen texte yi ñu boole woon ak photo Babacar Fall. mu baal ma moom Babacar Fall bi ñuy partagé photo yi ak euh, audio bi dama gis ñu def nii euh, Babacar Fall euh, mbaam mi mbaam mi waxati na ci daara muy texte boo xam ne man bi ma ko gisee dafa am ay jàngat yu baree bari yu ma ci am Babacar Fall xaw ko mosuma ko fréquenté mosuma ko woo téléphone xaw kan mooy Babacar Fall mais dafa am jàngat bu ndaw bu ñu war a def rek ci yu mel nii ñaari bu amee daara. dafa am lu mu baaxoo dafa amit nu mu baaxoo doxee ginnaaw bi ñu invité sëriñu daara bu mat sëriñ imam bi mu invité woon imam bu mat boroom xam-xam la bu mën a tontu ay question la bu xam li ñu koy laaj la exemple Babacar Fall bu invité imam wala mu invité sëriñ daara question yi waa mbedd mi di wax Babacar Fall am na droit poser ko imam bi question yi waa mbedd mi di wax question yi waa mbedd mi di poser Babacar Fall am na droit et daal di koy poser ki nga xam ni moom mooy sëriñu daara bi waaye nag ndokk la ñuy wax bi sëriñu daara bi matee ak matam ba mën a tontu question yooyu la nga xam ni ku déglu rek da ngay xam ni euh, Babacar Fall ëppoon na ci mu bañoon a laaj question yooyu la imam bi bu dee ci ni mu ko doon sañaxal euh, defe naa ni sax. ñeneen ñu dul Babacar am na yeneen façon laaj yu gën a metti yu ñuy laaj sëriñu daara ci yu mel noonu mais laaj pour xam ak laaj pour diingat dafay ñaar yu bokkul. mais bu ñu sukkandikoo ci concept émission bi ni muy doxee muy kuñ fa teg dañ lay laaj la ngay def léegi nag bu fekkee Babacar dafa dajale question yi wa li muy dégg ci mbedd mi sëriñu daara yi dañuy dem ci benn place publique dañuy dem ci bopp koñ bi dañuy dem ci tabax bu àggul dañuy dem ci kër gu àggul ñu nekk fa di jàngale loolu ay question la mbedd mi di wax te dañ koy gis ak suñu bët. ñaata weer ñaata at maa ngi wax état bu Sénégal di ko wax ni kaay ma jàpp sa loxo dugal la ci mbeddi ndakaaru yi wan la xale yi nga xam ne dañu wax ne dañuy yalwaan te xale yi taalibe lañ d'accord xale yi taalibe lañ mais ñaata xale yi taalibe comme ni ko imam bi leeralee ci biir waxtaan wi nii bi ñu jàppee xale yu mujj yi di leen delloo ñaata xale yoo xam ni dégguñu sax olof ñoo nekk ci biir Assane Mesere doon na leen ko wax la fois passée ci émission bi euh, ñun ñi nga xam ni dañuy génn suñu kër suba teel gi di liggéey ñaata xale yi taalibe ñoo ñuy wër ñëw di jël si li nga xam ne mooy seen sarax mais dañuy xam ne ñi ñuy jox d'accord ay taalibe lañ tuddee seen bopp ñëw ak seen tànku neen ñëw ak seen pot ak seen yére yu xotteeku ak seen yére yu dagg mais da ngay xam ne ñii duñ ay sénégalais mais comme nee nañu dañuy jàng alxuraan amuloo droit ni duñ fi jàng dangay ngay def li ngay wàcconte ak moom ñoom léegi nag question yooyu nekk ci pénc mi te mu sonal waa daara oustaz Makhtar Sarr mi ngi ko doon wax di wax ni ñoom sëriñu daara yi pare nañu pour jàppale état ci xale yi mu bëgg a jële ci mbedd mi d'accord mais yan xale ñoo ne ci mbedd mi xale yi drogué yi ñu ngi ci mbedd mi xale yi jël ferrailleur di ko jaay ñu ngi ci mbedd mi xale yi gazman yi ñu ngi ci mbedd mi xale tafukat yi ñu ngi ci mbedd mi loolu nag sëriñu daara yi ni pare nañu pour jàppale état ci xeex gu mu bëgg a xeex xale yi génne ci mbedd mi dem ci kër yi loolu moom état dañ ci ànd ak moom amma ba mu des nag ñu jàpp ab sëriñu daara ci biir daaraam muy jàngale alxuraan jàngale bu légal amul feebar feebaru coronavirus yalwaan loowul ay ay ay ndongoom ma ngay teg am njàngaleem ci yoon ñu fekk ko fa di ko fa di fa bundu xatal loolu mooy mooy li jaaduwul waaye li Babacar Fall def man gisuma ngànce bu ci nekk ba mu desoon nag Babacar Fall ak a mu nekkal ca plateau bi xama consultant la fa xawma ñoom ñu daje woon di def débat di xas ak a xeeb daara loolu moom bu amoon ñu sañ dal ci kaw Babacar Fall mais boo invité Assane Mesere muy liggéey GCB wala muy liggéey Mesere info wala muy liggéey BM info su la neexee nga ne ko Assane Mesere dégg naa xale jigéen ñi de bala ngeen jël seen demande yi pour liggéey ci ñoom da ngeen leen di tëddee mais loolu fu ngeen ko teg pour Assane Mesere répondre ci question yi nga koy laaj mais tekkiwul ni Assane Mesere yow yaay tëddee xale yi mais média yu bari fii ci Sénégal loolu lañ leen di bàkkee que bala ngaa dugg ci benn média faaw ñu tëdd la boo dee góor boo dee jigéen ba faw ñu tëddee la boo dee jigéen boo dee góor nag moom soo amul lijjanti doo ci bokk loolu la ñuy faral di wax média yi ci Sénégal mais est-ce que média yëpp ñooy doxee noonu mais boo invité tey Cheikh ñas wala nga invité Youssou Ndour wala El Hadj Ndiaye wala Bougane Gueye Dany wala nga invité Sidi Diagne mais da nga leen di poser question yooyu ñi leen seen média yi lii ak lii am na fa bu ñu amee maturité mën a tontu question yooyu la xayrun waaye nag li garaaw mooy nga wéet fi nga wéet di jël ay tuuma di ko teg ci kaw ay nit su ko Babacar defoon moom ñun ñoo koy njëkk a dut baaraam mais nag Sénégalais yi dañu gaaw ci diaboliser beneen bi damay dégg fu ma fu ñu toll ñu naan RFM euh, groupe RFM dañuy xeex daara dañuy xeex diine te mbokk yi nan la média buy xeexee diine di nekk ci réew mi RFM day ñu ne day xeex diine te yow mii am xewu diine boo amee publicité RFM nga ko yóbbu soo amee gàmm RFM nga koy yóbbu màggal RFM nga koy yóbbu ñu am benn espace boo xam ni foofu benn bés baay Assane moo ni ma euh, na nga jàpp RFM heure sàngam ba heure sàngam ay gàmm ak ay màggal affaire diine rek lañ fay publicité waaw nan ngay xoole benn organe boo xam ne dañuy wax toujours dafay xeex diine te yow loo am yóbbu ko ci organe boobu nga gis fi ay organes yu mel ni tey exemple mën nañ ko jël Lamp Fall nga xam ni léppam diine la donte yi am na yeneen yu fi nekk mais mën nañu ni ñoom kat dañ ci raxaale culture am na musique am na leneen mais tey nga jël lu mel ni làmp Fall wala nga jël Touba TV wala nga jël beneen organe boo xam ni moom du teg daray daray daray musique wala mbalax mais ndax mas nga fa gis benn Sénégal yóbbu fa publicité am Sénégalais yi nag ñoo war a arrêté seen benn communication bi ñuy def ndax mënuloo wax ni da ngay xeex ngir dëgg jëm ca kaw te médias yi taxaw pour dëgg jëm ca kaw dooleen dooleel doo leen jàppale boo leen gisee da nga leen yërëm mais loolu nan lay àndeek foo toll ubbi sa làmmiñ média bi day xeex diine ñii dañuy xeex diine te yow pro loo am publicité boo am yóbbu ko fa pour yokk leen doole mais nañu arrêté communication boobu le nañu arrêté communication boobu loolu doxul boobu doxul nañ ko bàyyi bala maa gëm ñi daal li ñuy wax naan dafay xeex diine ña ngi koy xamee ci seen ay yëgle yi ñuy am fan lañ koy yóbbu. ña koy xamee ci animateurs yi fa nekk bu ñuy tudd doomi soxna yu bari la ñuy tudd te nag gars yi toog naan dañuy xeex lislaam ak dañuy xeex diine nañu arrêté yooyu s'il vous plaît waaw média bu ci nekk am nga loo ubbil daara pour mu def ko oustaz Ndiaga Seck ma nga fa oustaz Mor Thiam ma nga fa ak oustaz beneen bi xaritu euh, Ahmed Khalifa Niass bi ma fa mais ña fa diine lañ fa teewal. des fois oustaz Makhtar dañ ko fay invité dañ fay invité ñeneen ak ñeneen am na benn wàll bu ñu fay bayal l'islam d'accord nañ ko kii question yi lu mu tàng tàng nañ fa yóbbu ku ko mën a tontu bu ñu fa yóbbu daal am su ay bu nga xam ne buñ ko laajee question mu tërëf mais nañ bu bu fa invité ku mat ci tontu bu tontoo borom xam-xam yi dañ xam ni kii tontu na waaw. xam naa gars yi nag dinañ wax lu nekk mais commentaire leen kenn ku ne livre nga commentaire wax la neex beneen bi docteur Ahmad Lo dama dégg ñu ni. Euh, oustaz euh, kii Mouhamed Lamine Dramé ak euh, oustaz Mbacke Sylla di ñaar ñu baax ñoo ko invité gannaaw bi ñu ko invité ba pare aussi dama déggat ay attaques yu baree bari ci Facebook bi ci réseaux sociaux yi ñu gars dal seen kaw euh, mën nag mbokk yi xaw na maa jaaxle lool dama jaaxle jaaxle naa de dafa mel ni daal léegi yërmande gi yàlla amoon. laa taqnatoo min rahmatullahi googu ñuy wax inna laa yaxfiru zunuba jamian googu dafa mel ni daal léegi gars yi ñoom bu fekkoon ni mën nañ am nañ opportunité pour gis yàlla dañ naan ko diw moom bu ko jéggal diw bu ko baal diw bu ko accueillir Assane wax na ko barki démb des fois euh, gars yi tarixa bi wala yoon wi wala diine ji dañuy mel ni ab groupe whatsapp dañuy ajouté di retiré bokkatoo ci tarixa bi gëmatoo sëriñ bi diingatkat nga dangaa weddi mag mi d'accord bu yàggul dara defe naa war na man ñetti at dafa am ay mbokk yu doon dox sama émission maanaam pour ma dalal docteur Ahmad Lo te maa ngi jot ay audio ñenn ñoo xam ni pour ñu bàyyi li ma xel li may wax nga mën a comprendre am ay mbokk yoo xam ni bi ma leen ko waxee mën leen dafa am ñuy dox sama émission ak docteur Ahmad Lo pour mën ma invité ko ñu waxtaan am ñaar ba ñett ñu ma wax ni ma d'accordal waaye ci kaw loolu yow bu ñu la ko accordé lee comme journaliste nga ci benn côté nee ko dama bëgg diw bokk ci émission bi ak diw ak diw bu nangoo indi ko ñu jàkkaarloo waaw naka nga mën a nangoo ñett ñooñu jàkkaarloog docteur Ahmad Lo ci waxtaan ci poser ko ay question oustaz Mbacké Sylla ak Mouhamed Lamine Dramé invité ko 2STV yi ñu ni lu tax ñu ni nan la nit mën a nekkee ci sofiyanke gi naka la nit mën a nekkee ci biir soufisme ba pare di invité koo xam ni nee nañu dafa yàgg diingat mag ñi d'accord mais naka lañu mën a bañalee ku mel ni Oustaz Mbacké Sylla ak li mu am ci xam-xam ak Oustaz Mouhamed Lamine Dramé ñu ni waruñoo toog ak ku mel ni docteur Ahmad Lo mais lu lan lu tax mais man bu mën na maa dem waxtaan ak athée bi mën naa koo tàllal micro mën na maa dem ci catholique bi tàllal ko micro mën na maa dem ci ki nga xam ni juif la sax ma tàllal ko sama micro waaye boo demee fekk koo xam ne dafa wax ni man bokkuma ci benn tariixa du dugguma ci benn tariixa boo ko tàllalee micro wala nga invité ko wala nga wax ak moom sax ñu ni wala gis nga ko léegi nekkatul taalibe euh, wërta toog ak diw wërta toog diw mais lan mooy problème bi Sénégal mais faw ñu nangul boroom xam-xam dañoo war a toog ak borom xam-xam comme ñoom te barki démb wax naa ko nit nee naa ko. am na ci discours yoo xam ni dafa war a xewi am na discours yoo xam ni dafa war a xewi ni ñuy xeexalee tey sëñ mun taxaa ci yoonam wi ba mu am ci ndam ni muy xeexalee sëriñ Mbay Si Mansour ci ci nda ci yoonam yi ba mu am ci ndam du fekk gaa yi ci groupe WhatsApp bi di leen saaga naan da nga leen bañ mag ñi comme li ma waxoon benn waaye keroog mu am lu mu tudd ni nangam sëñ mun Muntaxa ma ne ko yow yaay xeex sëñ mun taxaa yow yaay xeex yoonu murid yaay xeex sëñ Touba kenn ku ci nekk am na loo digle la sëñ ba digle boo ca nekkee yenn yi doo ko tal mais yow daal diw wërta toog ak diw Oustaz Mbacke Sylla ak li mu liggéey ci xam-xam mais Oustaz Taïb Socé dalal na fi docteur Ahmad Lo mais où est le problème lan mooy problème bi docteur Ahmad Lo mi ñuy wax du ma nga Touba am fa kër am na ay bien kër ma nga Touba day ziare ji njabootu sëñ Bàmba gi ah way léegi léegi léegi nag léegi lan mooy problème bi lan mooy problème bi. nañu arrêté yooyu di bàyyi diabolisation bi di wër toog ak diw di wër invité diw di wër ta wax ci rajoom di wër ta wax ci nangam ak nangam te ci jamono boobu mën ngaa comprendre ki nekkul jullit wala ki nga xam ne moom gëmul dara ate la mën a ñëw wax ci micro nga mën a toog ak moom mën a débat moom nga mën a maslaxa ak artiste bi mën a maslaxa ak mbër mi mën a maslaxa ak fecckat beeg waykat beeg mbalaxmaan bi mandikat bi sàcckat bi droguemaan bi nga mën a maslaxa ak ñoo ñëpp te mënoo maslaxa ak kii nga xam ne nee na jullit la bi fi waa collectif ànd xeex ànd euh, sàmm jikko yi bi ñu fi invité ba invité bi ñoom imam Alioune Badara Ndaw ñoom docteur Ahmad loo ñii am nañu ko doon am nañu ko doon xebet mbokk yi sëñ Touba dafa liggéey ci bennoo ba jógee fi Seydi Hadji Malick si dafa liggéey ci bennoo ba jógee fi nag lu mel nii la boo koy def ñu la diw doo murit génn nga ci yoon wi da ngay mbubboo sëñ bi da ngay nàngam nañu arrêté yooyu te àndandoo puus lislaam ku ci nekk nag di sosal mag ñi masalan nga ñëw di xale dem jàngi ji ñëw bëgg a tuutal magu Sénégal yi nga bëgg a tuutal li sëñ Tuubaa bindoon wala li Seydi Hadji Malick si bind ñu génn nag arrêté la ci xam-xam wan ni la fi nga teg sëñ tubaa nekku fa woon sëñ Tuubaa jaamukatu yàlla la woon da daan gindee di defar ay nit yu yàqu bi jël ay nit di leen yóbbu seen borom Seydi Hadji Malick si ñu jàngale ko ci ni mu bañee woon lu bon bañ lekk lu xaraam ba daan wax naan du ma naan soow ndax lu tax bëy wi wala xar wi wala nag wi mën na dem ci toolu jàmbur lekk fa loola bokk ci jeexitalu meewam man lekk ko mu nekk loo xam ne lu xaraam la te man Malick duma lekk lu xaraam mais ñi jàngale leen bu keneen ñëwee nag bëgg a indi meneen njàngale mu wane nii nga orienté leen ni leen nag sëñ Tuubaa sëñ Xaadim Xaadim Rasul Seydi Xaaji Malick si nekkuloon fii fii la nekkoon waaye yow loo xam ne am entreprise nga ko ba gis dóorante mbëkkante dóorante mbëkkante pendant des années mais mënul nekk dóorante beeg mbëkkante bi pendant des années mënta nekk nañu bàyyi mbëkkante bi te bàyyi boroom xam-xam yi ñu waxtaan ñu couvrir diine l'islam ji imam Alioune Badara ndaw yàgg na ko wax nañu bennoo puus diine l'islam ji te sàmm li nga xam ni moom la fi mag ñi bàyyi woon mbokk lii la ñu indi woon di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.